diggante mairie bu Thiès ak waa CICES ngir rek gox boobu mën a amal ci weeru novembre ab foire comme na ko rek eh, opérateur économique ya nekk ca Thiès di sàkko saa su ne lépp rek jëm ci taxawaayu CICES taxawaay bi CICES am ak gox yi nekk ci Sénégal gi yëpp ñu teewlu ci loolu compte rendu Aïssatou bu Bodian ak Abdoulaye Wade ci wàllum daal di yóbbu ay activité am ci région yu Sénégal CICES fas yéene signé ab convention ak ville bu Thiès ngir ñu daal di amal ab foire niki weeru novembre bi di ñëw. ñu am xalaat ni eh, suñu ñaari structures yi mën nañ organiser benn foire sectorielle sur les produits yi nga xamante ni ñoo gën a feeñ Thiès au mois de novembre 2023 et vraiment loolu décision boobu jël nañ ko suñu ñaari administration yi dinañ taxawal ngir yeggale la convention cadre boobu ñu mën ko signer ensuite ñu lancer foire bi ensuite ñu liggéey ba mu nekk succès bu mag a mag foire boobu mën a préparer la foire internationale de ces bi nga xamante ni 2024 lay tàmbali mu nekk un rendez-vous annuel boo xamante ni Thiès yëpp dinañu koy xaar bu ñu sukkandikoo ci directeur bu CICES linimen dina tax ba opérateur économique yi nekk ci région yi ñu mën a fësal bu baax a baax Thiès la mu am ci wàllum ay ressources. mais di rappeler rek mooy orientation boobu mooy bëggatuñu askan bi jàpp ni CICES affaire de Ndakaaru la parce que ñun mission bi nga xam ne dañu ko dénk dañu war a fësal lépp loo xam ne ni mooy potentialité. yu ñu am suñuy ressource kon dañu jàpp ne war nañ dem ci région yi te région yi bu nee rek am na potentialité waaye tey région de Thiès moo ñu intéressé boo demee Thiès xam na ni Thiès Carrefour la waaye maire nu mu ko waxee tey opportunité yi bari nañu waaye foog ñu exploiter ko ba nga xam ne ni tey lii nga xam ne ni mooy cuir si Thiès lii nga xam ne mooy mango si Thiès lii nga xam ne ni tey mooy mine si Thiès nañu fexe ba accompagner les acteurs. wàllum signature boobule convention cadre fas yéene nañ ko def ni ki bés yi di ñëw euh, fële ca Thiès laata ñuy daal di tàmbali def li nga xamante ne moom mooy lancement officiel bii le événement.